mu tàmbalee ba tey jii suma eeful bi day génn te man maa ñëw pour wéy ak of course tàkke ma soo ma tàkke ñu sëy bu ñu tàmbalee ba tey jii masuma la sonal waaye ñu ne xol bu fees sa jooy ha aka sedd fi mu ne de galaax gi fa tàmbali si mbedd bi galaax gi fa tàmbali de wuu mbeddam tubaab bi de fa tàmbali galaas fa tàmbali galaas de te nag man tey li ma xam pour dox xam fu mu jëm te ma ne dama bëgg a dox at least five miles and five back soon na ngeen def naka suba si si lu ngeen ne ndékki ngeen am man de ndékki ma gis sama yaram bi lay wàññi ma xëyee du may lekk ba ay mm, ñaari waxtu ñetti waxtu ma lekk tuuti xaaraat ba juróom juróom benni waxtu ma reer si loolu de laa ne caay waaye mu ngi dox sama yaram waa ngi wàññeeku léegi miłanie hołasa. soo yee eh, waxaan ma wax si xonde wax ji du jeex ji rek you know ma ne ko wax ji du jeex ji rek you know <laughs> fas te tëjuma suma jaket bi te rek lay dee pëppëtëlaw te rek lay dee gis ngeen tubaab bi seen weer lu weex la le la le yëpp la seen ngeen lu weex la le taxalee ba ma jàll ngeen gis ko galaax gaa nga ne ca tali ba frigo xëy man dëkki tubaab la frigo la tubaab yi nag liñ mën ci xoole buñ ne seen moto yi fa ñuy xoole de su ne ñu oto yi di ma xool di ma xool xam naa fa ñu wax ne moo nit ku ñëw kële nga bi di wax rek nag kum da moo nit ku ñëw kële musuuram gi leer ko di wax ni la kum da dësum tubaab yi lee mën a xoole su ne ñu ngi may xool xool yoo ne maa bañ a vidéo seen oto yi sax gi ngeen galaas gi gi ngeen gi yu weex yi la yëpp galaas la gi ngeen galaas gi gi gaa ngi noonu tàmbale fii nag moo xamul galaas waaye galaas gaa ngi noonu tàmbale tey moo tax may dox bañ ne waaj a suule ndax yàlla bu galaas gi ëppee fekk suma yaram ma wàññi ko man de tey maa dikk pour ñu waxtaan si di ah man de si mbiri góor ñi de dikkaat waaye tey nag may jéem a yaru du ma wax nukku du wax dara ah subhanallah amin du wax bu neex boobu <laughs> bu neex bi ma namm bay waaj a def noonu ay what is it God so bu neex boobu duma ko wax dinaa taraay ma wax yeneen ok so lu may wax mooy wuu sama musóor gi fay métti li ma ko takkee fii si digg boobu fay métti li may wax si mooy yéen góor nit ku ñuul de si yéen laa di kat danaa taraay ma bañ leen wax ñu suuli leen tey moom danaa taraay bu ma wax ñu tàdd leen bu ma leen wax ñu robi leen bu ma leen wax dara te moom kenn du leen robi ngeen di toog kenn du leen robi ngeen di dund dégg nga ma sama leen a soxla parce que seede gis leen seede bi dikkati suma ma xamoon jëkkat tey joo xam ne tey mu ngi xam mbay njaay gudd te rëy laa ilaha illallah kay neex fajar ka noonu duma xeew mbay njaay sedd suba teel gu gudd te rëy ñu kukk gaat soo ko xamee day bëgg a jóg maa ngi yóof maa ngi daan ras mbedd mi sax te nit ak suma gannaaw foog naa de xaraw def naa ko nit ak suma gannaaw wala <laughs> naa ne kenn néew fi balaa ñuy wane maa ma leen a soxla de lu ma leen di yuuxu ne taxul ne soxla ma leen de ma leen a soxla moo tax ma di leen yuuxu anyway all the time so xam ngeen ko sax so léegi xam ngeen nu ngeen di de <laughs> may try wax njëkk ak teraanga ok allo good morning na ngeen de góor ñu baax ñi naka soo si oh yéen baax waay allo so léegi nu ngeen di def mooy su ngeen di wax ak jigéen boo xam ne ngeen ne ngeen ko bëgg a takkoo man dooyaat de no sorry xaaral ma des na bopp nit wax ak yéen waxi nit balaa ngeen di foog ne ma leen a hate or something ok léegi jokes aside maa miin su nee suma vidéo yi rek def suma fiis bi di click léegi may serious taxaw leen xam ngeen léegi nu ngeen di def su ngeen tasee jigéen boo xam ne ngeen ko bugg a takk ngir yàlla ak yeneen te waxuma man de waxuma man saa bu waxee rek ngeen fag ne man maa tax may wax oh ok su dee ma maa tax sa waaye it's not all man ok jokes aside ok parce que normally loolu lu nga xam ne pour man la sax dafay nekk pour ñëpp tamit ok jokes aside soo léegi déglu leen su ngeen tasee jigéen boo xam ne yéen nga tasee moom you know bu koo takk bu leen di ragal jigéen bi di foog ne jigéen bi dafa indépendant torop wala dafa xam raay tam torop wala soo waxee benn mu ne ñaar xam nga yéen ah léegi tey sama xol bi jëfuurati suma xol bi bu jëfuuree rek ma yuuxooti leen waaye danaa try ma calm down <laughs> nice you guys are very good da ngeen di bañ jigéen boo xam ne comme ça dafay dibéet ak yow ok comme ça dibéet ak yow nga wax lii mu wax leneen won la opinion am yii si ça si ngeen ne kii dafa dëngaan soo ko takkee sorry sorry sorry sorry maa ngi try pour bu sorry sorry amiin <laughs> si saa ngeen ne kii suma ko takkee naa sonn kii soo waxee lii mu wax lale non waaye yéen lu tax ngeen bëgg jabari mbindaan anyway jabari mbindaan moo tax ngeen di romb seen jabari mbindaan yi di leen di nukk nit ñi xulóog yéen ah sorry maa ngi waxaan nu ko sax su fekkee da nga xam jabari ne du wax di jooy rek di noppi di toggaañ di jooy di noppi loo wax mu ne waaw yes sir mm-hmm, mm-hmm. good very good wax nga dëgg kay gis ngeen xob yëpp ay se xob yëpp fañ galaase xobi tubaab yi day fañ galaase xëy man àddina su jeex si la jaaxal na wala xob yu galaase xobi mango yu galaase day bitim réew gi li yëpp galaas la ci xob yi barki yàlla galaas la galaas gi gis ngeen ko galaas la gisoo ko nu muy seeyee galaas la xob yi fañ galaase gis galaas la hey man réewi tubaab yile le xob yee galaase mooy yaa booy gis ngeen li am won leen suma yaay vidéo bi won leen suma yaay vidéo bi man danaa dee ci sedd bi le gis nga ko fa sedd dama xob yi galaase <laughs> ren rek laay deeti te amu jëkkër de amu jëkkër ju may nangam taan ci sedd bi dara di sangu rek eh man danañ ma suule ma suule si wax ji sax sori bi ko sori bi ko ignore what I was saying fàtte leen li ma doon wax noonu totally fàtte leen ko xaaral ma ñu wax si la ma fayda soo léegi like I said du man sax maa tax may wax de barki yàlla man taxuma may wax yàlla xam na ko waaye yéen da ngeen di dem si jigéen ñi nga xam ne moo tax ngeen di ragal jigéen ñi nga xam ne dañ like independent moo tax jigéen ñu independent ñi ñëpp ndeysaan dañuy dem wuti tubaab ak wuti yeneen xeet di leen daw yéen ñu si bëri te jigéen bu independent na dafa baax de jigéen boo xam ne ni jigéen ñu independent ñu si bëri dañ dee loyal dañuy wax dëgg duñ dem di topp nit ñi di tërëree nukk nit ñee ka di fiif dañ lay bugg a pare dañuy wax dëgg dañuy nekk hard working ñu si bëri dañuy liggéey xam plan pour indi xaalis si famille bi ngeen plan lay together yéen a waaye ñu si bëri bugg leen sax jigéen booy liggéey di indi si kër gi anyway waaw may toog ne ba da ngeen di bugg jigéen boo xam ne rek ubbi tànk yi rek ni xoja daf ngaleeku rek ngeen katt astafurlah amin ngeen dugal amin ngaleeku rek you know and then amin amin you know that one so bëgg leen jigéen yoo xam ne you know fay uh, fay indépendant da ngeen ko dee ragal da dee bëgg jigéen faana faana bu mel ni Ami Jobe ba pare waaye di same di same time jigéen boo xam ne nekkul di wax ko Ami yen ñu si bëri sax nga sama vidéo dafa tax ngeen ragal ma da ngeen fa ne man su ngeen ma takkee noonu lay mel like man man dama nekk di lee damay nekk di jombri seen kaw te fekk na su ngeen ma takkee fekkee góoru baax ngeen boole se fekkee ku baax ngeen la wax de neefa ma jombri seen kaw man na si jóg sa side dama dee gisee relationship differently dama dee fu ne ni ki soo ko buggee da nga war a wax ak moom spécial wax dafa am yenn wax yooyu wax ak moom waxi jàmm rek waxi yar ak respect rek ok su la mer looyee sax dafa am foo war a xem biliifu ma ne soo nobee ni ki soo meree da nga war a wax lu nekk yeneen wax yi nga xam ne afta da nga koy rëccu bu leen ma gis nii de nekkuma di wax pour man su ngeen ñëw takk ma lay kay sedd waaye du ngeen ko gëm parce que ma leen di wax sedd bi ñëw nii te xaw ma jëkkat man la neex sedd bi ñëw ma jëkkat de ne xaw ma ñëw bëgg a takk de ki ma jaral sëy laa gis a gut ki ma yaakaar te xoolu ko moom laa gisut fi ma ne nii te man tudduma tuxi tukki du ma dem di tuxu ak suma doom yi si benn dëkk ngir góor yàlla digg tere suma doom yi jàng seen jàng ak seen lay moom moo bon njëriñ look let's forget about me waaye dama leen di wax loolu parce que li ma wax ngeen fa ne mën a tax seen wax ngeen fa ne mën a tax sax ba tey dinaa leen ko waxee look da ngeen di fa su ngeen xamee góor jigéen boo xam ne dafa indépendant man de tikkee maak laay dem pour delloo li ma jëndoon paam jompam ma jëndoon foofu moom laay delloo ji ak sipa da ngeen di fa ne su ngeen takkee jigéen boo xam ne dafa su ngeen dugalantee moom jigéen bi daf leen di wax luy right ak wrong te bëggu leen lool li ngeen bëgg mooy jigéen boo xam ne <laughs> li ngeen bëgg rek jigéen boo xam ne loo def rek mu ne waaw loo wax mu ne waaw su kontaanu sax faam góori naar yi toog fële di tox sa boori kosta saa ma ñu di xool nag niñ buggee jigéen te caga te mën a tox subhanallah astafurlah joe.com look dégg su fekkee ne nii yéen a ngi gis uh, yéen a jigéen joo xam ne nii dafa indépendant jigéen joo xam ne daal mooy yéen mu ngi am mu ngi am voice indépendant mooy nga am voice also independent means dafa mean like jigéen boo xam ne du la yaakaar you know but man dama ko dama fa ne jigéen bu am voice ku ne indépendant nga ok but dafa mean like jigéen boo xam ne du la yaakaar day defaral boppam so da ngeen dee def su jigéen ni ma leen noonu xaaral ma ëlbati caméra bi jël caméra bi teg ko suma xarxanam bi rek su jigéen ni ma leen noonu du ngeen ko de like simply because ngeen a bëgg jigéen bi nekk di jooy di togg you know di ŋàll tànk ŋàlli ŋàlli tànk yi jotee mu ŋàlli togg jotee mu togg fomp jotee mu fomp jooy jotee mu jooy sa topp suy wax na wax tuuti wax ñaari baat ñett yu neex baat yu neex sax de waaw léegi nii yow yow nga wax moom anyhow def lu la neex loo xam ne jaaduwul lu ne nga def ko moom du wax dara lu mu tax ngeen di ragal jigéen indépendant waaye léegi again xamu leen lu ngeen bëgg de si su ngeen ragalee jigéen indépendant bi nga xam ne loolu ngeen war a demar parce que mbëggeel balaa muy neex borom mun laa challenge nga challenge ko waxuma in a rude way challenge but you know like normal human being love kind of challenge soo bëgg naa nekk foon ngeen nekk mate ngeen nekk best friend waxuma yabaate kind naf nekk mate de you know what I mean so da ngeen di ragal loo noonu léegi because ngeen koy ragal da ngeen di dem si jigéen boo xam ne xëy na dafay pretend this is where you problem moo tax geen dee wax ne jigéen ñi suñu leen takkee dañ dee change this is the problem because jigéen dañ dee pretend ne ñoom ne ñoom dañ duñ wax lu ngeen def rek baax na noonu la ñuy def pour ngeen takk leen parce que xam nañ ne suñu leen wanee dee clou true color du leen leen takk léegi su jigéen ñi defee ni ku dof loo waree rek ñu ne waaw loo wax ñu ne waaw nga takk jigéen ñi pare nag réalité ñëw jigéen ñi woon la ne look find nda barrage this is not how I'm gonna live my life su ko defee nag ngeen mer su ko defee nag sëy bi tas su ko defee nag ngeen jigéen ñi dañ dee féeg de jigéen ñi baaxuñ de ne fekk yéen tam yéen a dee wuti break this is the problem. ooh who did they lie with ne xaw ma gisee hoodie waaye hoodie bu rafet de bu góor yi rek laa fi gis xamuñ hoodie jigéen su ma dee man hoodie laay wut ba tey su ma hoodie ma doon wut keroog ba ñëw fii ba tey moom laa ñëwaat di wut de fekk xaw ma hoodie bu may wut duma ba soo dama jënd benn jompa keroog barki dee ba xaw te moom laay delloo si because jompa bi is not a hoodie te hoodie laa bëgg soo noonu la da di takk na léegi su ngeen takkee jigéen bi su jigéen bi demee ba nga xam ne léegi sonn na si waaw waaw mu commencé di leen wax dëgg ngeen mer su ngeen commencé jigéen bi di leen dibeet ngeen mer fase ko wala ngeen ne jigéen bi dafa wecceeku dafa fen dafa prétendant pour ngeen takk ko façon bii laa jënd waaye moom laay delloo comme bu nga xam ne baat bi amul xuude bugguma ko xamoo taxoon ma jënd ko la xuude laa bugg soo léegi su ngeen takkee jigéen boo xam ne nii tamit du leen challenge ngeen get bored jigéen boo xam ne lu ngeen def rek mu ne waaw lu ngeen wax mu ne waaw yes waaw yes sama nijaay waaw yes aha waaw yes waaw yes ji fa lay sàppe yéen xamul leen ni doomu aadama njaay lu ne def dee sàppee xamul leen ko xamul leen ko doomu aadama njaay lu ne def dee sàppee soo léegi lu nga xam ne mooy tax affaire bi du sàppee rek mooy pour ngeen di challenge each other su ngeen di challenge each yino di debate each pare di def yenen foon soo gisee ñu nit ku ñu suñ suñ góor yi dee wuti jigéen alot parce que ñun du ñuy du ñuy foon doo gis ni ko xam jëkkëram dem dawi doo gis ni ko xam jëkkëram dem dox you wala exercise wala dem swimming wala dara even holiday together sax du ngeen ko def fu ngeen toll rek yéen a ngi tëju si néeg di togg di di di nangamtaan di togg di nangamtaan I don't even want this one and this is not even my size size 12 ah, togg di nangamtaan rek tëju si néeg togg di nangamtaan moo tax ngeen di sàppante àddina is about challenging gi nga nekk soo buggante ak moom te léegoo léeg nga wax dara borom xandu si ngeen werante dibéet i cooda loolu daf day tax mbugeel bi gën a neex afta su ngeen jiboo yi daf day nekk fresh mbugeel yëpp daf day gën a neexaa ah, dafa pare su yàggee da nga di xam ne ah kii day du jël noonu sens bii nii soo jarul may commencé lii sax su ma ko defee kii damay xam moom problème waaye soo gisee jigéen ñi bëri day jël seen noonu sens yi te duñ day ñemee wax ko suñ waxee ngeen mer moo tax jigéen ñi duñuy kontaan bi ko jigéen ñi duñuy kontaan bi ko yéen su jigéen ñi waxee ngeen mer moo tax jigéen ñi even nukk bi ngeen di wut sax du ko xam ak jigéen ñi subhanallah ay no but this is the reality ah bi dey na nice and warm bi ñaata man nag tey di jacket yi jompa yi dama leen dee daw dama def may def may gën a réyal te ni ma réyee rek doy na waaye ah bi dee dana woom bii dana woom de te lu woom lay wut wuu bis ma royee ma de so da ngeen dee bëgg jigéen boo xam ne lu ngeen def mu ne waaw lu ngeen def rek mu ne waaw su ko defee mbiram sàppi leen ngeen wuti keneen di ko nangam. ouh 29 pounds te bu may delloo nii 24 pounds la xaar ma téye ko rek seet ma téye ko rek te wóor seet wut su ma xamul yeneen ma soog a xalaat bi nii ah bii nag bii fii bagaasi góor yi la am I don't understand I don't care anyway su ma ko laajee dama koy jënd 29 pounds. man de bëgguma jëndal kóoli 29 pounds ah xaaral ma dem delloo ko jël suma xale bi wallaahi tubaab yi la ñuy suuli leen tubaab yi la bon nañ ta seet de xaaral ma seet fële soo léegi noonu la non da ngeen di bëgg jigéen ñi xamu leen luy lu ngeen lu ngeen bëgg da ngeen di bëgg jigéen ñi mbindaan bu nekk jam di same time su ngeen xamee jigéen ñi mbindaan bu nekk jaam bi mu sàppi leen. ngeen di ko fa daw di dem di tërëri nangamtaan yeneen jigéen yi di ñëwaat parce que xam ngeen ne yeneen jigéen yi ngeen dee nangamtaan noonu lu si bëri mooy jigéen yi dañ leen dee challenge te challenge bi loolu nga niit you see my point or oh, you not gonna agree xam naa ne du ngeen nangu wat you know su ngeen waxee seen digganteeg yàlla <laughs> xam ngeen li ma leen di wax nii teddu lii mooy problème bi so su ngeen xamee ab jigéen boo xam ne mu ngi leen di challenge bu leen ko di gisee as something bad naan sama jabar dafa bon sama jabar de li ma waxee benn mu ne ñaar sama jabar baaxu it's not like that jabar ju baax la moo tax mu di la challenge dafa nekk honest rek di la wan ne buggut yenn jikko yi nga koy def fa bugg nga def ko jikko yu baax moom it mu mën laa def jikko yu baax sëy bi neex lii rek ata ba nekkoon ne jigéen du bon la man di mënu maa gis fii nii di mënu maa gis la ne xaaral ma dem seen dagaay nañ ma delloos maa la waaye foog naa dama war a jënd suy benn bi xaw ma receipt bi so because xaw ma receipt bi su ma gisee dara lu ma bëgg gars yi delloo ma moom may gënal gars yi jox ma dara lu ma bëgg lool ndeysaan yi rafet nañ waaye fa ñu rëy size 20 ëppataloo ay que man ay nii rek ñuy jiin proper nice ñuy jiin konoon damay dem gars yi jox ma suma xalifin bi ouh leeda sip leeda sip bi de war naa leeda si po dama ko dee bëgg a jënd waaye dama ko dee ragal a jënd leeda si po daf dee nice nag soo ko solee ak de ba sol high heel hmm. bi dee dana baax suma dox yi xaaral ma jël ma seet ñaata la parce que beneen sipp bi xam nga price eighteen pound dos sum tiikee maak ñoo seer doomi xaraam yi la No, not taking that. They have la fu jaar rek ngeen xam ne su ngeen xamee jigéen bu leen di challenge nekkul ne jigéen bi dafa bon jigéen bi dafa nekk dëggu ak yéen moo tax mu di leen won real feeling am yi jigéen bi nga ne loo ngeen wax rek mu ne waaw xam leen ne mu ngeen nëbbu xam leen ne xamu leen jikkoom that's just the reality ku ci xam jigéen boo xam ne du la mos a challenge la waa mu ne waaw xamal ne nekkul réel waaw moo tax gis loo yéen ñu si bëri da ngeen di am jigéen yoo xam ne dañuy den def leneen te loolu du leen neex ngeen di mer parce que jigéen bi su la waxee lu mu bëgg ko nangu moo tax muy def leneen te du la ko laaj su ko defee ngay mer su ko defee nga neen lu tax nga fenal ma abaa lu tax nga fenal ma abaa das boo su la waxee dëgg ngi mer lu mu la laaj ne def ko bëgg a def nga xaaye ko. di jump bridge all the time man going crazy so moo tax jigéen bi noppi di la seetaan rek léegi su buggee def dara dafay dem rek def ko jarum lay wax anyway I hope ne understand ngeen lu may wax nii ba vidéo bi dama koy ñëw end soon because I have to go oh I cannot find anything that I'm gonna other trouser for ah, sorry it's a skirt dama am sipa ak hoodie boo xam ne moom laa war a delloo waaye sipa bi aw ma price am bi foog naa six pound xaw ma seven aw ma receipt am bi so because aw ma receipt bi dama am pour jël dara ga yi wecci ma ko soo amul receipt duñ la dee jox xaalis TK Maxx noonu lañ mel am xaraami la te xaw ma xaw ma dara lu may war a jël gis ma fi dara lu may war a jël loo xam ne nii dina mën a replace sipa boobu noonu hmm. This is a nightmare xam fu mu jëm ak so loolu rek laa leen bëggoon a maa ngi ñëw dem lii de dafa nice and warm waaye dafa rëy dafa ëpp foo mu ëpp torop so ngeen am good day maa ngi dem xam fu mu jëm man suma soppi bi tey kas ah xanaa ma jël bi 11 pound size it is this looks small but ooh xoola xool leen tubaab yi li ñuy jaay barki yàlla tubaab yi fañ kon fees fi ne seen seen bagage ne ne fa xotteeku ndax musiba fi ne la xotteeku ko lañ koy jënd barki yàlla tubaab yi fañ feebar lii day jacket la waaye jacket bi xaw nañu tilime jommi naa wala si tubaab bi la tey fi seen bitik bi ñoom seen bagage yi du seen bagage yi ni mel wala lan fa ñuy jël di lonk lu ne rek ñu jël lonk seen yoon ñëw ci dof yeeg ñëw jënd si moo tax lu ne rek ñu lonk ah hoodie bii de dana war a woom torop hoodie bii ñaata la 19 pounds waaye xamul xamul mbaxana de waaye xam na lii si baat bi nga xam ne fa koy tàngal loxo yi it baax na de wuu bii dina war a baax si sedd bi de waaye 19 pounds loolu fa seer man de sipp gi rek ma jaaxal konoon dem naa bu yàgg waaye sipp gi xaw ma resi tam man tubaab bi ma demee nuñ may de 19 pounds de bëgguma koo jëndee dara 19 pounds mu laa dina xoolal ma UDP boobu muy suuli mi la rek. wo lii lum da mbubbi façon la de rango mo fi am mbubbam façon bi de na te rafet te xam na xudi waaye fa tuuti du du baagi bi fu ma ko jëndee du baagi wax na laaj de waaye non loxo itam bëgguma ko find a bright TK Maxx bii de baax na extra large te bii woom na de waaye fa seer 16 pounds foog naa ma jël bii de su ma ko laay gud ma indi xaar ko waaye bii bii dana woom ta baax xaar ma jël bii rek su ma demee sa kër gi su ma ko laay gud ma ñëwaat beneen yoon ma lay lay la laa ninety nine pound jacket bi la loolu de mooy téeméeri téeméeri pound rek téeméeri pound la jacket boobu di jar gi ngeen tubaab yi fañ leen a suul te dox moo tax ñu seera seen bagage yi pëttalaw bii de dana baagi ba baageetut fourteen pound waaye bii fa baagi ba ëpp bis moo ko jëndee dafa mel ni bu góor bii fa ñaaw déedéet kay du ma ko jënd bi ma xamee nii lay jënd xaar ma dem lijjanti ji bi ma xamee nii xaar ma dem lijjanti ji bi ma xamee nii dañ dee am tubéy yu nice na waaye géej naa fee nekk day xut tubéy de xutam tubéy mi sax laa dee tayam mu seen ndax booru bala am na xaaral bàyyi leen yéen su ma toppee vidéo bi du ma dem suma ma su ma enu bi duma dem dama war a dem euh, li ji wasiko ko euh, oo ni jacket la no not bothered with this dafa xala nuroo bu ma sol ni dafa am li dafa am euh, dafa am giso lu dee ni lifin noon yaram mi gaynde noon o ma dede mani teddy bear noon ma sol ni daf ko am man de black black lifin lay hut waaye hmm. let me just go and see if I can get this cardigan again I'm good there hopefully na dégg ngeen vidéo bi yéen yéen góor ñi lay wax de jigéen ñi moom like I said soo gisee du ma dee wax si ñoom torop li ma dee wax lu si bëri saanut jigéen ñi duñ si dee nekk suñ jigéeni culture ñoom duñ si dee nekk problème for exemple debate debate suñ jigéeni culture dañ dee am góor ñi leen di debate all the time waaye jigéen ñi nangu kenn bëggul jigéen debate la waaw yéen su dee fukk ngeen yéen juróom-ñett yi yëpp jigéen du wax jigéen ji wax dee yéen rek kay debate jigéen ji lu wax ngeen ne ko déedéet so looloo tax may wax góor yi so xuti leen bëri ko bëgg wala ngeen jos naan ko of tea te ngeen toog te sama makeup bi amoo benn powder defuma benn powder or oh, anything dama jos def ruuj ak fii waaye defuma benn foundation or powder because too much foundation bi ak powder bi baaxul si sa kanam bi every day so loolu laa loolu laay avoid right now so ngeen am good day ma maa ngi dem bye thank you for watching